mi ngi taxaw euh, nga xamante ni moom mooy la euh, Diouf Lambaye également mi ngi taxaw en tout cas euh, ñëpp ñi nga xamante ni voilà ñoom ñooy jàppal tànku président Ousmane Sonko fii ci Touba ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw nañ ànd ak ki nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko ci délégation bi nga xamante ni mu am solo bi nga xamante ni moom moo fi nekk donc ñu ngi xaar voilà Serigne Cheikh Euh, euh, euh, Cheikh Bara Ndiaye mu daal di ñëw yëkkati ay kàddu xam naa nag voilà kii la connaissant kii la connaissant moom moom dafa xaw a bëri ci sa <laughs> mu ko sañ a wax foog mu xaw taxaw taxawul tuuti gaa yi ñëw nuyu ko voilà parfois sax ñu négocier ak moom pour mu wax waaye nag voilà waaye nag ñun ak moom ay partenaire lañ nag ndax moom daanaka si média bi la bokk si média bi la nekk moom Cheikh Bara Ndiaye ñu xool nu ñu nu ñu ñu jegee rek mu ñu jegee ñu daal di koy dékk suñu kàddu mu daal di si yëkkati xëy na Euh, daal di ci euh, yëkkati ay kàddu daal di daal di daal di daal di wax euh, donc voilà voilà voilà ñu mbokk internet yi Sen Teranga ñu taxaw di xaar ba léegi nga xamante ni moom mooy mbokk internet di xaar Ousmane Sonko voilà ñu ngi xaar Ousmane Sonko mais ñu ngi xaar nga xam ne mooy Serigne Bara Ndiaye mu daal di yëkkati kàddu voilà alors ñu daal di taataan suñu kàddu. ñu euh, mu nga xam ne moom bokk na tey ci délégation bi nga xam ne euh, ñëw na fii euh, ci Touba ànd ak le premier ministre Ousmane Sonko Cheikh bi ñu ñoo ngi nuyoo waat bu santaat yàlla di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa santaat Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul léegi dama nuyu président Ousmane sonk daal koy ndokkeel ci màggal gi mu ñoddiwaat ma daal ma xanaa màgg yow suñ màggalu daaw moom. moog bu reen bi dina wuute de ma di ko tooñ na ko déet man kay daaw rëcc naa ba màggal si nag mu ne ma noo tane woo ma yow ñoo <laughs> ren nag kon euh, ku déglu discours bi sax di nga xam ne am na lu yaram yëg wax naa ko sànq Cheikh Mouhamadoul dul day xal day sëñ Touba du far du far farloo waaye nag ku yàgg ci ëttam di nga xam aw doxinam dama ko wax sànq te waxoon naa ko ci yeneen média mësuma gis homme politique ñëw fii seet si sëñ Muntaxa nga wax mu tontul la boppam kenn mësu mësuma koo gis man Macky Sall def na fi 12 ans su waxee protocole moo koy tontu barki mu sax président de la république bi mu fi ñëwee bi mu waxee protocole moo ko tontu homme politique yi fii ñëw yëpp ku ci mën a wax protocole moo lay tontu waaye Ousmane Sonko dem leen def Ousmane Sonko à Touba ni yoon yi toll ak nu mu mën a doon. su waxee ba noppi sëriñ bi moo koy tontul boppam loolu nag lu ci sëriñ bi jublu moo ko xam waaye ñun jàpp nañ ne lu rëy la te lu rafet la te lu màgg la te distingué la ci biir ay moroom loolu moom tey jii bi suñ Ousmane di wax di wax rek jàppoon naa ne bu noppee ki ko doon war a tontu ki daan baaxoo di jël kàddu sëriñ bi sax ñëw na ba placé wu waaye sëriñ bi moo daal di jël kàddu gi tontul ko boppam loolu lu am la loo xamante ne euh, lu mat a bàyyi xel la bi ci des mooy wax na ne Seydina Ousmane Sonko ki ko doon jotalil ne ko président Ousmane Sonko mu ne ko déedéet Seydina Ousmane Sonko waaw loolu nag moom itam wax la ci biir yi wax wax na ko ne itam li ngeen di def lu baaxa ko ëmb lu baax ngeen ci yéene na ci seen xel dal te na ci xelum ñëpp dal loolu itam jàpp naa ne wax la ci biiri wax kon siyaar bii siyaar la boo xam ne bu yemoon ci loolu rek maanaam sant yàlla waaye ku ne xam na ne président Ousmane Sonko bi muy jël kàddu dafa wax wax ju daw yaram ne ko heure bi daaw dama nekkoon ci barab ñu doon aaye ku ma seet si ba ma jàpp ne ñëpp fàtte nañ ma ma jàpp ne ñëpp fàtte nañ ndekete yow fàtte woo ma ma jékki-jékki rek nga indil ma tàndar ma wax ma ne lekkal te loolu muy wax man dama cee mën a témoigner yaakaar naa Sénégal képp man ma ci mën a témoigner ndax foofa ma fa ñëw fekk ma fa man mii sunu saal yi ñu nekkoon lal yi dend danga tëdd man def naa foofu ñaar fukki fan defe naa ne ak lu topp yoo xam ne gisuma jant gisuma wu naaj doo gis benn doomu aadama bu dul ab docteur bu la tiim bu amee lenn lu la man loo mën a wétalikoo dara dara dara loo xam ne dana yi danga yëg ne yaa ngi dund ci àdduna mooy ab télé booy jàkkaar loolu amul leneen leneen luy raf wala muy yëngu amul loolu président Ousmane Sonko dund na ko foofu lu ëpp weer ba ñaari weer la lam nekk réanimation jàppal na du gis doomu adama du gisub jant du gis dara lu yëngu baa luy raf lu lu bu dal bu ne lew mel na ay armeel da nga dem ba jàpp ne yow nekkatoo jamono noonu mu waxee ne fa def jàpp naa ne ñëpp fàtte nañ ma loolu lu dëggu la réanimation da nga dem ba jàpp ne yow dong yaa nekk ci àdduna bi wala nga jàpp ne nit ñi moom maanaam yëgatuñ ne yaa ngi dund ngir wéet ak dal ak ak demee waaye bu ko fa sëriñ Muntaxa fekk see génnee ko ci foofa mu du nekkoon a ah, loolu bu toogaatee tey ne sant naa la ci gërëm naa la ci bis la bu daw yaram bu mat a bàyyi xel ndax sëriñ Muntaxa de day koo xam ne yërmande la feesa dell man mii bis naka tey ci heure bii daaw laa génn kaso ba fi Macky Sall yi ñëw keroog li may doon doon gone di doon doon aw sagaru taalibe bi mu nuyoo Macky Sall li mu ko njëkk a laaj mooy ana baara ndax bàyyi nga ko. Macky Sall ne ko waaw mu ne ko ndax wër na xam nga dañoo annoncé ay yooni yoon ne bàyyi nañ ma ba sëñ bi jot ci ñi jékki-jékki ne déedéet te bàyyi wuñ ko mooy ñaari yoon yu ñu ma annoncé ne bàyyi nañ mu mu jàpp ne kon saa buñ ko ko waxee rek ay nax da ciy mujj mu ne ko ndax lu wóor la mu ne ko waaw wóor na bàyyi nañ ko mu doog a mu doog a Macky doog a yegg suuf te loolu man amul fenn fu ma ko féete amul aw sagaru nit dong laa ndegam yërmandeem yegg na foofu ci man kon sàkkaan ak président Ousmane sonk kon ban yërmande la ko sëriñ bi ëmbaloon ak ban xeetu métit la amoon ci li xewoon te bu ci dara mujjoon loo xam ne safaan la sax mën naa mujj ñu jàpp ne ak càggante goo xam ne kilifa yi fi nekkoon ñoo ko def kon lépp mujj na nekk sutura lépp mujj nekk teraanga bañ daje fi tey di santante di gërëmante loolu lu mat a sant yàlla la te sant nañ ci suñu borom subhaanahu wa taala bu baax jërëjëf. alors chef bi ñu gis ne benn minute rek tey bu euh, président Bassirou Diomaye euh, di ñëw dañuy gis ni sobriété mooy am fii euh, mais tey bu Ousmane Sonko di ñëw dañuy gis ne délégation bi dafay gën a yokku protocole bi aussi bi nga xam ne moo ne biir Touba dafay gën a yokk lan moo waral. waaw am loo xam ne man mënuma cee wax directement wala ci kaw waaye président Bassirou Diomaye bëgg naa bu ñëwee Touba ba noppi mu évaluer. jàpp naa ne boo ko évaluer au niveau du politique évaluer ko ci niveau de religieux dina ci bari loo xam ne mën na ko téye waaye mën na ci bari lum jubbanti war parce que nag mbir yi moom euh, jubbanti rek la ba keroog muy muy mat waaye jàpp naa ne man bu amee lenn lu ma siy wax du ma ciy wax président ñi muy àndal laay waxal bu fekkee da ngaa ànd ak ab président de la république di ko defal garde sécurité muy sol costume ba mu yàgg mu jëm ci benn barab boo xam ne costume bi bi nga ko xamee woon da ko summi teg fee ngeen ànd ba mu yàgg dàll yi président soloon mu summi ko teg nee war ngaa yëg ne yow comportement bi nga yoroon war nga cee am loo dindi ndax atmosphère bi sensé na mais boo ñëwee bu Touba di bëmaxe di dóore di daqe da nga yàqal président rek ci lu mu yëgut loolu nag faw président bàyyi ko xel bari na fii ñoo xam ne duma ko wax ndax day nur leneen waaye ñoo xam ne bu président di ñëw du ñemee ñëw te bu ngeen xoolee gone yi TikTok ak yenn yenn patriotes yi di ngeen am lu ngeen seetlu te loolu dara defu ko ñoo gën a bëgg fu Bassirou yi ñëwee baa ñu taxaw ci seen wet waaye dañuy dem ba ragal ne bu ma fa demee ñu toroxal ma loolu nag maanaam jurul dara ndax président Ousmane sonk jàpp naa ne même sécurité bi Bassirou Diomaye Faye soxla moom la président Ousmane Sonko soxla te pourtant tey bi mu ñëwee nit ñi jege nañ ko ànd ak moom gunge ko ba dugg te wàññiwul dara kon nag ku mënal loolu ku man def loolu ci président Ousmane Sonko war koo mën a defal président Diomaye te defar dong lay jur loolu laa koy soññ te di ko wax ne ko nekkul ci menace ay yaay président non dañ lay defal euh, kaaraange yow yow kii nga état nga yooyu yëpp ay nax la rek Sall mi nga xam ne moo gënoon a nekk ci menace fu mu jaar ñu yuuxu ko téewut ñi ko soppoon daanañ yegg si ba ci moom di ko nuyu di ko jege moom nekkul ci menace kenn yéenewu ko musiba du dox ba kenn yuuxu ko ñëpp ñu ngi koy tàccu di ko ñaanal am cofeel ci moom